asalaamaaleykum waa Sénégal waa TikTok coow li bëri na nag ñu bari laaj nañ ma ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ku ci daan ak ku ci gañe yooyu yëpp nañ ma ko tey nag dinaa ci wax tey la dimanche jamono yi may wax ak yéen euh, treize heures trente-trois maanaam une heure la cinq ci weer bi le novembre deux mille vingt trois avant loolu ku bëgg ma seetal ko sama numéro soixante six cent vingt et vingt trente wala soixante dix sept huit cent quatre vingt sept vingt soixante dix man la Serigne Mbaye Touba ki nga xam ne mooy Ama Baldé ak Modou Lo man nag Modou ñaanal ñaanal naa ko yoon ci kurus te it sama kurus moom ñaan ci amut moom mastu am ci kàttanu suñu borom. kon daal yaa ngi noon Modou Lo lañ bëgg mu daan Ama Baldé ñaan nañ si ñaanatuñ si si kàttanu suñu borom.